ay Sénégal yu takk ñoo wàcc fii ci Paris ci capitale bu France ngir jéebaane ni Macky Sall yore nguur Sénégal ginnaaw jàppante yi nemmeeku fii ci Sénégal ba ci ay bakkan yu ci rot diaspora sénégalaise bi delloo njukkal askanu Sénégal faa itam fàttaliku doomu aadama yi nga xam ne nii seen bakkan rot na ci mbir mi benn kàddu doon gënoon fës ci seen wax moo di Macky dégage maanaam na Macky abale mbooloo moom nag bàyyi ko woon fu ne ci réewum si France daje woon ci place de la République ngir naqarlu lépp loo xam ne ni jëme na rek ci nekk Macky Sall yore réew mi bokk na ci seen kàddu ñaalu wala démocratie gi nga xam ne ni gis na ne dafa dellu gannaaw waaye itam li nga xam ne ni moom la gën a fës moo taxawaay bi nga xam ne ni gis nañ ne Macky Sall daf ko taxawee moo di faagaagal bépp opposant bi nga xam ne ni dafa nekk ci biir réew mi mbiru Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñoom itam dañoo gis ne wàllu complot moom moo lax su ci gannaaw ba tax na ñuy ñaan nguuru Sénégal ñu libeere kii di Ousmane waaye itam bokk na ci seen kàddu moo di ñaawlu ni nga xam ne ni noonu la France di doxalee maanaam piller mboolem ressources yi nekk ci biir Sénégal ñoom ñi nag di diaspora bi seen yéene nekkutoon lu dul gën a fésal yorin wu ñaaw mi nga xam ne nii moom lañ jàpp moom la Macky Sall yére réew mi ngir gën ko jébaane ci àdduna ko wërëngal këpp